waaw xam nga fii client yi moom ni muy demee mooy ku nekk danga am choix waaw ñun nag nekkoon fi pour pour lu dul clientèle bi ku ci nekk ci sa choix ci lañ lay kii daal ci lañ lay orienté daal day am ñoo xam ne ñun léeg-léeg ñu def orientation mais aussi client bi léeg-léeg moo ñëw day am choix wu boppam waaw fi moom presque jigéen ñi daal ñun boog li ñu xam jigéen ñi moom fii moom boo xoolee ñun fi amuñ fi waaw góor ñi donc ñoo góor ñi moom duñ fi ñëw wala ko fi ñëw dafa fekk ne lim ko yónni da koo bind day ñëw jëndal am na ñëw jëndal seen jabar mais nag jigéen ñi moom ñoo fi ëpp. waaw loolu moom ci commercial bi lay doon maanaam ñi xam ne la loolu di laal ñun ñi nga xam ne ñun ñi dañuy jaay rek la ñuy def ñun loolu du ñu laal parce que ñun noonu sax jàpp naa ne bokk nañ ci li ñu gën a arrangé parce que dina tax client bi bu ñëwee yow yaa koy proposé wax ko ne ko lii la mais bu njëkk ba da jënd benn diw avant avant nga jaay sax wala avant savon ba di génn beneen diw génn pib bi bari ci dëkk bi ba nga xam ne léegi presque boo xoolee déchets yi dañoo bari produit yi ñoo ngi fi bari te mënul woon baree waroon a baree noonu parce que pib bi moo tax diw bu génn nit ñi dañuy ñëw di la ko laaj te da ngay daw wëri ko léegi nag bu bu ñu arrêté pib bi dina arranger vendeurs yi ñoom bu ko sax defee proposition la ñuy dem. waaw parce que day am ñoo xam ne ñi mën nañ bañ doon sax sénégalais mën nañ bokk ci beneen beneen beneen waaw étranger lañ doon te daa am ñoo xam ne ñi ci seen réew ñoom dañ koy utiliser. comme ni ko jigéen ñi di utiliser mais fii moom même bu ko fi góor di jënd notisam lay yore boo xam ne mu wóor na wóor kii dañ ko koo yóbbante mais du pour moom waaw loolu moom ñun ñun amuñ ci kii parce que mën nga xëy journée bi lépp yëpp doo doo jaay sax kii doo jaay sax benn góor jigéen rek nga. xam nga non produit moom amul benn boo xam ne bi dañ koy jaay clandestinement moom waaw dañ koy exposé mu leer mais daa am produit yoo xam ne ñun dañ ko bokkale ak pharmaceutique yi boo xoolee ay prosone am na fa. te am na fii ay bio huile am na fa te am na fii ay toppi crème am na pharmacie am na fii dafa am pharmacie yi léegi daf ci am ñoo xam ne ñi presque dañoo dem ba fekki cosmétique bi daa am pharmacie yoo xam boo fa ngay jàpp ne cosmétique la parce que dañuy def aussi lait dañuy def gommage dañuy def savon même ba ci wàllu make sax am na ñoo xam ne dañ koy def waaw te yooyu yëpp ci cosmétique yi lañ ko xamee woon am na yoo xam ne boo koy wër doo dem sax pharmacie parce que xamee woo leen ko woon cosmétique nga ko xamee woon kon ci cosmétique ngay ñëw jënd ko amul benn produit boo xam ne bii dañ koy denc fenn di ko jaay lépp dañ koy exposé ku ñëw gis ko waxaale ko jënd ko ku ñëw laajte tamit boo xam ne bii aussi tamit ñun amuñ koy dañ naan la amul ko waaw loolu rek moo si nekk mais amul produit bu ñuy denc pour pharmaceutique yi wala pour kii yi waaw ñoom dañuy jaay Nivea dañuy jaay Nivea te autorisé wun ne kii moo koy jaay wala kële du ko jaay parce que gis nga produit yëpp ci yem léegi ba même ba ci électronique sax boo demee léegi dafa am foo am original waaw mais dafa am place yoo xam ne yi nag moom boo fa yow mi client boo fa xasee ba dugg jëndee fa rek da lay wóor ni tu en sécurité boo ñëwee voilà danay am danay am parce que produit buñ piraatul moom amul gis nga produit boo defarul même buñ ko piraatee mënoo koo xam te client bi utiliser wu ko waaw parce que yow defaroo ko keneen a ko ay defar non non loolu bu loolu daan na am mais léegi gars yi dañoo xarañ ba nga xam ne ni ñu koy defee dañuy méngale yëpp maanaam mais il faut nga yàgg ci doog ko mën xam mais mënul ñàkk nag mu jàll day am ci ñu muy jàll mais day am ñoo xam ne ñi moom du ci jàll day am ñoo xam ne ñi dañ koo xam liggéey bu nekk daa am ñu ko xam ñoo xam ne ñi nag moom chance moo leen ci dugal noonu mais nag tôt ou tard day kii lépp day mujj feeñ parce que client bu ko utiliser aussi bu ñëwee dala koy wax aussi yow it da ngay bàyyi xel ci loolu chaque fois booy jën da ngay bàyyi xel ni am na produit yoo xam ne contrefaçon la nga ciy bàyyi xel ba ci prix bi suñu la ko waxee sax di nga xam ne kii yaa quelque chose moom bu sañoon moom original kese la ñuy jaay parce que xam nga kiy jaay toog ci place ki ko utiliser fa la koy fekkaat bokku la kii jaay dem parce que ñun nekkoon ci garage nekkoon ci marché marché boo xam ne bi ci ot ay oto ngay taxaw jaay sa place ngay toog jaay client bi nga jaay moo lay fekk si waat te léegi dëkk bi métti na métti boo xam ne bi concurrence wu clientèle bi am na da bëgg jaay lu baax client bi utiliser ñëw ki ñëw day indi keneen te loolu rek doy na pip non non loolu du ci dara fii ku nekk boo xëyee rek li sa chance moom ngay jaay ndax booy xëy da lay wóoroo ne doo yor dara te boo xëyee di nga jaay te marché bi li muy xat yëpp teewul kenn ku nekk da ngay dox romb place yëpp ñëw ci place jënd keneen romb la dem jënd ci keneen noonu lay demee rek ku nekk lii sa wërsëg dong ngay jaay waaw loolu moom moo nekk ci àdduna bi moo nekk fépp mais concurrence moom amu ci waaw lu dul ut concurrence bi lu dul ut sa bagage yu baax loolu dong mooy kii bi bagage yu assuré ak bagage yu baax bagage yu qualité bu ko defee say client moom ñooy publicité ñoo lay defal pub bi ñoo lay utal yeneen client mais du question que ne kii bi pour njaay mi nii moom amul problème moom parce que dañuy jaayalante ci suñu biir sax voilà parce que léeg-léeg kee am dara te yow doo ko am client bi laaj ko nga dem jëli ko non non jafe bi mooy bagage yi yokku rek loolu mooy problème bi parce bagage yi day wàcc yokku wàccaat yokkaat te yow prix de vente ba nga doon jaayee moom ngay jaayee ba léegi du changé maanaam prix de vente yi duñ changé mais prix d'achat yi dañuy yéeg léeg-léeg savon yi ci savon yi ci lait ci lépp parce que Sénégal moom lu manqué rek yokku seddaay nag lay gën a jaar moom seddaay lay gën jaar waaw seddaay moom ñëppay diw moom waaw seddaay moom góor ñi même góor ñi xeesalul sax dinañ jënd au moom sax diw buñ diwoo am ñoo xam ne tàngoor même ba ci jigéen duñ diwu dañuy jënd seen savon bu baax di ko sangoo mais sedd moom mënoo ñàkk a diwu ñëppay diwu moom te aussi am na lotion yoo xam ne mënoo ko utiliser tàng tàngaay bi mais bu seddee faaw nga koy utiliser loolu rek la sérum yeeg ki yeeg yëpp moom sedd ci lay dox vaseline yi lipo lèvre yeeg yooyu yëpp ci ci sedd lay dox waaw sedd moom yaram bi yëpp ngay jéem a defar ba fen du am benn problème daal. ñu nit ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax ok merci.